ngi ci ndànd. sama ramas daa jàmbaar nari deetu da sa ko ci kii mooy alaaji Sóora Mbay sama adjoint la kii mel ne ci suba jaaroon moom ah. wala wax da ñëge fi bi waaw wax na ma ko ah, wax na ma ñëw na fa xam dégg na la ma ko ba mu dikkee moom kii mooy Ardo Ardo waaw mooy Ardo mhm. kii mooy Ahmed Boujaran Ahmed Boujraba waaw Ahmed Boujraba Ahmed Boujraba mhm. mhm. jànq gay nag moom ah. euh, moom sama xarit la sama dooma waaw moom nag femme d'affaires la. Hmm, femme d'affaires. moom ah. femme d'affaires yan affaire lay yëngatoo ndax femme d'affaires loolu dafa bari ay pàcc de. waaw xam nga moom nag li muy li tax ñu tuddee ko femme d'affaires lépp loo xam si yërmande gumbaa ngi ci rek ma nga ci def loxoom. lii rek la. lii rek la ku baax la. ah beneen leer de dafa dafa bari ay kii de. ah loolu am na solo eh. loolu loolu am na solo. léegi nag ma ne woon naa leen jox part euh, kàddu gi. Hmm. Alaaji Mansour kàddu gi ma a ah salaamaaleykum commissaire maaleykum salaam ñu ngi lay nuyu yaa ki nga àndal mhm. di nuyu tamit mbokki dëkkandoo yi yëpp ndax woote ñu wuy si la rek kenn amut fayam waaye ndawal buur bu ñëwee cib dëkk mhm. chef seet seet chef de village mhm. seet si adjoint ñu ngi leen di dalal jàmm waaye li nu naqari bari na lool li nu bëgg mooy bu lépp fajuwulit li ci ëpp faju lii daal mooy samay kàddu li ci ëpp na faju wasalaam kon nag Ardo waaw man maa ngi leen sant di leen gërëm. ndax nun pël xam naa ni nun képp ku def fi ay brigade nun nga ka defal. ndax waxtaan bi danu danu si kontaan. surtout man man sama kar yeeg sama bëy jeex nan tak tak tak tak tak bukki yaa ngi lekk sàcca yi ñi ngi sàcc moom daal daanaka daal man daal damay sax bugg bàyyi sax affaire affaire jur daal. Hmm. waaw sonn nan torop bu ngeen nu si mën a dimbali ngeen dimbalin incha allah waaw loolu moom la jël nañ torop ci dëkk bi mm-hmm. soon sonn nañ lool mm-hmm. kar bu ma jiital tey boo lëggee du ma ko gis waaw jërëjëf loolu dana faju bu soobee yàlla dana eh, eh, eh, gis nga commissaire man Ahmed Bouzrab man maa ko gën a am lu ko naqari mm-hmm. man jóge na gànnaar nu wek suut Mauritanie ñëw fii si ngumba wallahi de gis nga suma débuté yenn saa yi nit dana ko ñëw sax jaay ma ma jaay ko pare du du ma ko gisal xam nga ni euh, boobu sàcc la dama sax ba ngeen wootee sax sama fit bi euh, dafa dem xamul lu ngeen ko wax Ahmed Bouziram man dama bëgg ngeen wax ma li ngeen ma wax ma dem sumay may ndax dama bëgg a dem Seras a ah, jaaxle na ah jërëjëf léegi nag kon ma jox jànq Guèye moom it mu sànni ci kàddu waaw jërëjëf euh, chef de village xam naa ne yow soo waxee sax waruma cee tegaat baat waaye wax dëgg yàlla ñoo ngi rafetlu woote bi di wax suñu gan yi nga xamante ne ñoom tamit yoon rek ka leen fi indi dal leen jàmm wax dëgg yàlla parce que seen ñëw fii nii ñun daf ñuy jàppale surtout man si li may yëngu parce que booy xool man maa ngi si politique bi maa ngi si commerce bi maa ngi si aussi tontine yi parce que man yàlla dafa def man dama yoru natt tontinu jigéen ñi. te tontine mooy natt yooy nga xamante ne nii. taxawal soxna si yow yan genre façon natt nga man dama presque ñi ci dëkk bi yëpp dañoo bokk ci sama natt weer juróomi junni la. loolu benn loxo la wala ñaari loxo. di nga am un million cinq cent bu dee ñaari loxo ku mu neex aussi nga am trois millions. te loolu aussi xaalis la. mais père yow lan ma si yoon ci affaire yi ay natt. pour leeral attention gis nga commissaire affaire yi natt yi. loolu na kay indi problème ci dëkk yi affaire u teg na teg na teg na teg na gisatoo ko dem na yoram jël na xaalis ba te yooyu dong nga fi indi problème ah. mais non non mais loolu sa nekku ci yow. sa yu nekku ci ay lijjanti ay te ay natt. te ñaari loxo rek nga yebale natt lu la na nga ko mën rek ci kaw nga mën ko rek. mais day leer rek na leer de. waaw ok parce que comme que yéen na. merci. ñaata teggeegum sa natt bi. ñetti nit ñoo teggeegum. heureusement sax tombé ngeen egg si. loolu kontaan naa trop nag merci beaucoup. nan la jàppale bu mais ba amul teel parce que ñun ay jeunes naa te dana war a ay affaire tëdd ak affaire yeewoo ak affaire doxee affaire ba fonto ce n'est pas vous qui décidez du yore décidé li ngeen def de. sën lañu war nañu wax ñoo ngi dégg ngeen naan musique bi dañ ko fi arrêté. mais ñun musique buñ ko fi arrêté ñun dund. non boo leen ngeen tey seen làmmiñ li ma la wax ah du yéen yeneen ñu wax lu ñu def ñun li ñuy def article ñu indaale fii la li ñu des lépp mi ngi ci fii. lépp nga ci papier mettre sur papier blanc bu leen ma fonto ah. ay jeunes ngeen du ngeen dem ci tool ngeen bay. dem ci tool yi bay liggéey leen nga naan ay jeunes Eh, maa ne da ngeen war a tëdd kaar yi fi réer yëpp yéen a leen réer yow Ardo yow bul wax ak ñun man dama lay seetlu chaque jour booy sàmmi kon xoolal xoolal li ma leen di xamal daal pour une fois booy eh, eh tu la ferme je dis tu la ferme je dis danaa leen xamal leen nag nekk ndawal buur nag du tax nga sub ku siburu nga rendi ko wallaahi la article yi kat seeral leen ko ndax da ngeen a ñëw ci dëkkub jàmbur commissaire bàyyi maa dëkk bi ma raxas dëkk bam set